américains yi ñoo ko sos te liñ ci jublu woon mooy arme bi mooy jaysub américain bi ñoom ñoo ko sosoon di ci jokkoo ci seen biir mu yemoon mu doonoon loo xam ne lu limité wu la loo xam ne dafa yemoon ci seen biir maanaam soldats yi seen biir ñoo doon jokkoo ñuy dem ba gis at mu jot wala jamono ju jot ñu gis muy gën di yokk di am ay données yu bees yu ci nekkaat dema dema dem ba nga xam ne wax nañ ne 1986 ci la gën a yokk ba nga xam ne léegi yematut ci jokkowukaay waaye yem àgg na ba ci di di ci jokkalante ay lettre ay vidéo ay photo ak yeneen ak yeneen mu avancé bu baax a baax a baax tasaaroo it ci continent yi àddina bi yépp loolu bu yàggut lay soog di xew yàlla def it comme niñ ko gisee ñun ñëpp ab seetlu la rek at mu jot ñu gis lu yokk lu ci amaat ci biir mu am ay données yu bari yu ci nekk mel na daal am marché la boo xam ne dangaa ñëw magasin bee ma ngay jaay ay yére bee ngay jaay ci lu jëm ci wàllu lekk bee ma ngay jaay ci lu jëm ci wàllu naan bee ma ngay jaay ci lu jëm ci wàllu tabax dafa mel ne noonu la demee maanaam am daal xeeti shabaka maanaam benn shabaka boo xam ne benn buum goo xam ne dafa yaatu lool ca wuute wuute ay ay ay njariñ walla ay loraange ndax am na ci ci gàttal daal bu ñu ko doon tënk nii la demee tur di inter inter mooy lu yaatu lool loo xam ne dafa nekk alamiya dafa dafa daj lépp net nag mooy shabaka bi mooy maanaam ab shabaka boo xam ne ab jokkowukaay goo xam ne dafa dem ba tasaaroo ci àdduna bi yépp yi ñuy seetlu ne moom moo ciy gën a fés bu yàggutoo gisoon nañ lu mel ni ay jokkowukaay yoo xam ne fésoon na loolu muy ay Skype ay MSN xeet yooyu nga xam ne moo xewoon bu njëkk daanaka boo dee xool juróomi at ca ginnaaw loolu moo nekkoon yi nga xam ne moom lañ doon jokkoo ak xeet yi yi nga xam ne moo aju ci wàllu email yi muy yaawo Hotmail ak yu demee noonu yooyu daanaka moo xewoon yooyu ba mu xewee sax daawoo ci gis gone yi ñu doon liggéey nga xam ne dañ ko doon soxla dëgg ñoo ko doon yittewoo nga xam ne lu am solo lañ ci doon def da ngay gis ku nekk barab sàngam bu sori ñu ku nekk barab sàngam bu sori barab bu sori ñu yónnee ko message boo xam ne nii ci mën naa jëm ci fànn bu ne mën naa jëm ci côté lu jëm ci wàllu jaay génd mën naa jëm ci lu jëm ci wàllu social ak yu demee noonu kon noonu la demee woon waaye nag lépp lépp boo xool boo jàngee alxuraan da dolli ngëm waaye du la dolli ak yéemu ci tubaab bi soo jàngee alxuraan ñoom lii ñuy def yow yow jullit bi dalay lay dolli ngëm waaye du la dolli ak yéemu ci tubaab bi ndax borom bi moo waxoon ne laa yu xayirullaahu laa yu xayirullaah maa bi xaw min attaa yu xayiru maa bi anfusihim suñ borom moo ne woon àdduna bi système bii ma ko teg muy doxee nii la tàmbalee ci yonent yàlla noox jaar ba ci yoonut yàlla muhammad ak li fi jaar ci ay aqtaab ak i awliya yëpp su ngeen gisee may sensé système mu dund bi du ma ko sensé mukk nii laa koy bàyyi waaye saa yu ngeen sottee seeni mbir rek danaa soppi jamono manit waaw kon jamono bu soppi koo rek xamal nañ yéen yéen a soppi ci anam bu man di doon nag bu soppi koo neex ci yéen la bu soppi koo naqari ci yéen la bu soppi koo ak yàqute it ci yéen la yàlla yi du wàccoon ñëpp ne inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura doomu aadama bu ci nekk jox naa la xéewal gi gën ci xéewal yi xéewal googu mooy lan am xel nga xam ne du lu ñuy jaay du lu ñuy jënd teyit mboolem mbindeef yi mu sàkk yépp ñun nit ñun rek ñoo ko ci am teg ci it ku ko amut ci ñun nee na toggatuma la jëf yéen doomu aadama yi koo xam ne nii yàlla natt na ko ba amatul doomam toggatuma ko jëf maanaam bind bind xalima bàkkaaram bàyyi naa ndax xéewal googu dama ko koo xañ kon nit ku ci nekk nee na jox naa la loo xam ne ñeetukaay boo xam ne nii bu la neexee nga jaar ca yoon wu sedd wa bu la neexee nga jaar ca yoonu tilima inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafuran kon yàlla wàccoo na ak ñëpp kon bi internet ñëwee di indi ay maanaam lambo yu baree bañ bu njëkk liñ baaxawoon a xam mooy ku ma saa am lu muy yéene ñun fii ci milieu yi ñuy dund da ngay gis day takk ab voiture yori rajoom am na benn paa bu ñu doon wax Baye Moussa xam naa ay 98 99 ca Touba ñëpp a ko xamoon moo daal yéene ñun ci milieu bi ñu nekkoon rek yeneen dëkk yi noonu la demee woon léegi dem nañ ba nga xam ne bi mu xewee léegi bari nay njëriñ yu ci nekk yoo xam ne ak jaamu yàlla bu kawe léegi dala koy yombalal bu ñëwee ci ay njëriñam mën na laa yombalal lu bari ci xeeti jaamu yàlla muy yi internet yeeg lu ci aju tubaab ñu ngi jàng ba di ci am ay diplôme yu gën a kawe ca duñ teew ci université kasaare gi ñun ñii nga xam ne ci milieu yi lañu dëkk am na ci ñu jàng téere sëriñ bi ba jeexal te mosuñoo gis sëñ Abdourahmane am nañu ci jàng tasawudu sixaar ba mu jeex ca xamuñu sëñ Abdourahmane ci ban famille la bokk ci mbàkke mbàkke yi am nañu ci jàng ba àgg ca téere ba gën a kawe ci téere yi muy Masaalikul Jinaan te xamuñu kuy sëñ Abdourahmane kon am nay jariñ am na ñu ciy jàngal ay nit léegi nii ma toogee nii am na sama benn xarit ma doon jokkoor boo xam ne marché la nekk ci xeeti sit yi la cee yore yu muy jàngale yoo xam ne wax na ma léegi ne ma am na xale boo xam ne ci semaine bii tari na kaamil boo xam ne barab bu sore la nekk moo di ko jàngal ba mu tari na kaamil kon am nay njariñ mën nañ cee jàng mën nañ cee jàngale barab la it boo xam ne mën nañ cee tasaare aw yiw gaaw na ci lool bu ma waxee nag yëpp laa ci wax daanaka waxuma ci côté whatsapp wala ci côté facebook ñoom ñëpp rek mën nañ cee tasaare aw yiw ci aw yiw nga tasaare ko benn yiw nga tasaare ko ci benn doomu aadama loolu lu tiyaaba na joo xam ne kenn xamuñu toll yonent bi sallallahu alayhi na ko man sanna san man sanna sunnatan xasana fa laha wa ajra man amila biha ila yawm alqiyamati képp koo xam ne xotti nga yoon wu baax ak bu mën a doon nga fexe ba nit jaar ca nanga xam ne am nga tuyaaba ca la nga def ak képp ku def jëf jëf jooju jëf jooju ba yomal xiyaam kon barab la boo xam ne manees na cee am àjjana ci bu gaaw du yëfi fo tubaab ba ko defar moom addunaa taxoon yàlla taxul fi ne tubaab bi léeg-léeg def loo xam ne nii buñ gëmoon yonent bi rek seenu àjjana ca yi gën a kawe lay doon ndax maanaam yiw yi dafa bari xoolal bu njëkk bi ñuy dem màkk daa am ñaari weer dem ñaari weer di dox war nga dugg warwaay yi léegi nag da ngay jékki-jékki deux heures de temps nga jógee euh, aéroport bu Dakar wàcc da wala Riyad ci biir bu gàtt waaye nag problème bi yépp suñu borom wàccoon na ngeen nee nag innamal a'malu binniyaati ñoom lañ doon def li taxoon rek ñu doon ko def ca loolu la leen di fay ca ñoom yàlla taxut xañ na defar ko ngir jariñ ci àdduna ngir ñu fay leen ngir ñu am xaalis ngir nàngam ngir nangam yooyoo taxoon bu ci la leen taxee du baax it fekk gëmuñu yonent bi sallallahu alayhi ci am aw yiw loola nag yàlla li leen ciy fayee mooy turam woowu ñuy wax arrahman nee na ci la leen di sotti bu baax a baax a baax bu ko defee nag bu ëllëgee yomal am ñi nga xam ne ñoo gëmoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu sotti leen ci turam woowu ñuy wax arrahim kon barab la boo xam ne nii mën nañ cee def li ñuy ñu sa sadaxa jaariya mooy yiw woo xam ne day am continuité day day tasaaroo rek mën ngaa def benn vocal boo xam ne nii nit ki mën naa wàccu liggéey vocal des fi des YouTube des fa benn wax ju baax yoo xam ne dafay des boo duggee YouTube da nga fekk ay wax yu am solo yu Sëñ Abdou Khoudoss wax saa yoo ko jullit bi digloo taalibe bi ba xoloon tooy Sëñ Abdou Khoudoss fa mu nekk suñu borom a ngi koy sotti aw yiw ki tiyaab soo duggee YouTube mën nga faa fekk discours boo xam ne Sëñ Bass Abdou Khoudoss moo ko defoon daaw di ci wax di ci soññee ilaa yawmi diin loolu dafay des kon barab la boo xam ne nii mën nañ fi am li ñu wooyee sadaqa jaariya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit dana fi jógee yomal dana fi jógee faatu ba tey aw yiwam di continuer di dem ca jamono jooju mu misaal leen ñetti misaal yoo xam ne ci lañ ko mën a amee ca jamono jooju mu wax ak ñoom ci ñett ne ñett yi dong lañ ko mën a amee bu ñëwaatoon jamono mën naa am mu expliqué waat du gën a yaatu loolu waaye eh, ñett yooyu mooy lan mu ne nga jàngal koo xam ne nii tasaare xam-xam boo xam ne nii nit ñi ñu ngi ciy jariñ maanaam jàngal koo xam ne mi ngi jàngale waat kooka di jàngalewaat kooka di jàngalewaat kooka di jàngalewaat bi ci desaat mooy nga tabax loo def loo xam ne nii man nañ cee jariñoo lu mel ne nga def euh, nga nga jiwoon garab goo xam ne nii ku fa jaar dafay dafay keru wala mu toog wala sax nga bàyyi fii doom ju baax joo xam ne dalay ñaanal ba adduna tukki waaw kon loolu jaar yi la waaye waxul ne sa jaar jaariya fii la yem da leen jox rek expliqué leen expliqué leen ci loolu bari na ñu fi jóge ñoo xam ne seen i yiw boo demee seeni i page Facebook da fekk ay yiw yoo xam ne nii ba tey ñoom wàcc nañu liggéey bu yàgg a yàgg da ngay duggaat ca page ba di fa fekkaat mooy tasaare aw yiw saa yu fa ni duggee mën na caa jariñ bari na ñu fi defee vocal yoo xam ne nii ba tey mi ngi tasaaroo seeni i borom faatu bu nekkee yiw ku ko diglu kooka da cee amu yiw loolu la ñu tuddee sadaxa jaariya mooy sarax boo xam ne nii day continuer ba faaw am na ay njariñ yu ci nekk ndax day yëgle waxtu ca yëgle waxtu wax yëgle waxtu yëgle waxtu aw yiw la ndax ñi yëgle waxtu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na noddkat yi nga xam ne li ñuy def day yëgle waxtu nee na saa yi ñu yuuxoo ne allahu akbar fa seen baat toll seeni pale foofu lay toll ci àjjana kon yow mi nga xam ne am na ñoo xam ne fi ne waxtu jot ñu yëgle ko day yëgle waxtu day yëgle lu baax mën nga ne suba bisu koor la masalan am na ñoo xam ne tey xam nañ ne bés bu baax la ci weeru koor waaye dañoo tànn seen téléphone gis benn message moo xam vocal la wala diw esthétique wala nangam nangam te ko ko def seetlu ko sax fekk tiyaabal kon yëgle lu baax la barab la boo xam ne dañ ci yëgle lu baax am na it ay njariñ ci wàll social bokk na ca mooy barabu jokkoowukaayu mbokk la gis ngeen groupe whatsapp diw sàngam waa kër diw wala groupe whatsapp njaayeen ni wala waa Mbakol wala waa ñaxal wala waa nangam wax seen dëkk nga xam ne dañ fay jokkookaay kee day nekk ba Dakar yónnee benn vocal boo xam ne waa dëkk bi ñëpp koy dégg wala kii def benn vocal boo xam ne nii yëgle goo xam ne nii information boo xam ne ñëpp koy déggandoo kon barabu jokkookaay jokkookaay euh, barabu jokku mbokk la jokku mbokk mooy lan laaj sa mbokk mi ci lan la nekk nga xam lu mu doon sallallahu alayhi wa sallam neen koo xam ne dangaa bëgg suñu borom yokk saw fan ca tableau bañ bind fan ya nga xam ne kenn ku nekk ci ñun ñii. professeur Serigne Assane Diakhaté liñ la santoon yaakaar. mahfouz mooy loo xam ne duma ko soppi ci lu dul sama coobe rek nee na barab boobu ku bëgg moom yàlla mu joxe ndigal ñu dem ba tolloog saw tur xool dat bi nga war a faatu ñu yokkaat nee na del jokku mbokk del jokku mbokk ku bëgg ñu yokk saw fan del jokku mbokk. sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci xadis bu wér kon réseaux sociaux yi barabu jokkookaay mbokk la man na spécié jokku mbokk barab la it boo xam ne barab boobu xamee la am na ñu xamee ñu xamante ñoo xam ne nii ci réseaux sociaux yi la ñu xamante ñaata yoon nga ñëw ci barab diw la ah yow mel ne sama ami Facebook nga ñu nuyoog yow ngeen xamante ah ñaata yoon nga ñëw dajeeg nit mën la yow mi daa mel ne ñoo bokk groupe kon barab bu ca yàlla moom moo ñu sant ñu xamante inna ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu in akramakum at atqaakum man maa leen bind ci ay xeet yu wutee wuti bëgg naa it ngeen xamante waaye na ngeen xam ne ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla loolu suñu borom moo ko wax kon barabu xameewukaayam barab la it boo xam ne li yonent bi gënoon bëgg ci xeetam mooy ñuy takk góor ñi di takk soxna bu baax a baax a baax loolu da cee soññee woon da koo bëgg ñuy bañ di yem ci benn di bañ di yem ci ñaar di bañ di yem ci ñett di bañ wala sax ñuy yem ci ñeent kon comme na nga ko waxee ah loolu nee na dee leen def loolu waay da ko daa wax ndax bu ëllëgee yomal xiyaam damay puukaréew naan xool leen sama xeet yeeg seen soxna yi nee na bu ëllëgee yomal xiyaam yeneen yonent yi ñoom dañ naan sama xeet yi ñoom yenn soxna lañ doon yor nee na dee leen yor ci soxna yi cay jur ci njaboot gi mu bari bu ëllëgee ak puukar lay doon lay doon ci man yomal xiyaam kon barabu barabu takkante la bari nay sëy yoo xam ne ci la ci la saf ci la ci la amee bari nañu ay sëy yoo xam bari na ñoo xam ne nii ñaar ñoo xam ne dañu ku nekk ci ñun xam na ne diw sàngam wala man ngaa nettali koo xam ne diw soxnaam sa Facebook la ko xamee wala groupe nangam la ko xamee surtout nag groupe yi mbokk nii nga xam ne dañuy jëlante ci suuf yooyu day am dégg nga ba tey barab la boo xam ne nii euh, barabu maanaam li ñu woowee tasliya maanaam féexlukaay la féexlukaay la masalan la liggéey ba wàcc sonn jël connexion bi ah xaw a ree tuuti kaf ci loo xam ne barab la boo xam ne mën nga jël féexal sa bu njëkk li nga baaxoon stress mooy dindi ko bu njëkk li nga baaxoon xam mooy nga sonn nii taal bi ah wala nga jëm wuti seede boo jënd théâtre sàngam wala nangam léegi yooyu nga sa saal ngay tëdd yor sa connexion reetaan ba bëgg a ah kon barab lu am solo la ci wàllu social ah waaw barab la boo xam ne. bokk na ci njariñam it muy barab la boo xam ne day yombal lu jëm ci wàllu gëstu day yombal lu jëm ci wàllu gëstu barab lay boo xam ne nii day yombal lu jëm ci wàllu gëstu ak lu jëm ci wàllu njàng ko ni ñu ko waxee woon waaye noonu la amee ay ay loraange yu baree baree baree bare ca foofu mu ngi mel ne ngànnaay rek paaka paaka bi nga jënd andi ko ci kër gi paaka bi mën naa daggate loo bëgg a dagg ci wàllum togg wala ci lu man di doon waaye man naa lorit noonu la demee ni mu amee ay njariñ noonu la amee ay loraange yu bari loraange yi sax dañ naan mu ëpp sax bari nañu ko gedd ngir loraange yi bari yi ci nekk bokk na ci loraange mooy ci wàllu social ni mu amee njariñ ci wàllu social noonu la amee njariñ ci wàllu wàllu wàllu wàllu noonu la amee ay loraange ci wàllu social léegi nit ñi dema dematuñ dematuñ jugee kër diw dem seeti diw ndax réseaux sociaux na ñoo xam ne nii da nga daa dem ko léegi defatoo ko da nga koy te jug gi nga doon jug di ko dem di ko seeti bi ngay jug sa kër ñu ngi lay bindal tiyaaba jéego boo jéego ba ba ngay àgg léegi dafa toog léegi kenn seeteetul kenn diw de man maa ngi la dama laa fàtte woon envoyé vocal dama laa gëj gis ma ne woon naa la nuyu léegi dematul léegi demante bi amatul te loolu it baaxul demante bi dafa baax bari na it ay sëy yu ci tas bari na sëy yu tas yoo xam ne nii la ko waral mooy sëñ ba moo dégg vocal sàngam wala soxna sa dégg vocal sàngam bari na kenn ku nekk ci ñun man ngaa nettali diggante diw ak diw ci internet bi lay amee loolu moom daanaka dëkk baa ngi tas moom ni mu baaxee noonu la bare loraan waxuma sax kenn ku kër gu ci nekk rek mën ngaa xam problème sàngam ci internet bi la jóge waaw barab lay boo xam ne nii bokk na ci loraangeem mooy dafa gaaw ci siiwal lu bon ci loolu baaxul da loo xam ne dafa xew ñu war koo suturaan waaye da gis dañu envoyé vocal bi di ko ko partagé diw barab lay boo xam ne bu njëkk da nga bëgg boo bëggee jëw da ngay woo diw wala nga dem jël diw léegi mën ngaa jël sa biir néeg di jëw waaw yor sa téléphone di jëw diw di envoyé vocal xool ko li muy estati xoolal nangamam bi xoolal photom bi wala sax ngeen jàkkaarloo mu ne ci biir jotaay bi ngeen toog fekk diw diw ñu ngi jëwante man ngeen toog dend nii diw sàngam ma fële di jëw diw sàngam mi xoolal waxtaankat bi mbaxanaam mi xoolal nangam beeg weeram mi nangam nangam fekk yu demee noonu kon barab la boo xam ne nii maanaam lu jëm ci wàllu jëw yi da koy yombal bu baax a baax ci jëw baaxu ñun ñëpp xam nañ jëw li ci yàlla wax ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax barab la boo xam ne li ñu woowee tabarruj nga xam ne yonent yàlla yàlla da koo tere ci alxuraan karim mooy jigéen ñi di waneewu barabu wanewukaay jigéen ñi moom wanewukaay la ku ci solo faaw da nga fotowu esthétique màggal validé conférence validé yu kenn xamul la ñuy waaw man xaw ma bu ko validé woon xanaa màggal bu ñu validé woon yàlla naa koy validé laa yaakaar waaw boo demee conférence suñu Ahmad bi am na ku dugal sax léegi ba ne conférence validé kon màggal validé waaw yooyu yëpp day am kasaalika barab la boo xam ne nii ndeysaan li ñu yàlla santoon ñun góor ñi muy ñuy damm suñu gis léegi dafa jafe sa téléphone ngay kii jékki ne tay yem ci loo xam ne waroo léeg-léeg nga tay ko nag léeg-léeg doo ko tay kon barab la boo xam ne xaddul ab saar da cee jafe ci yàlla moo ne woon waxul lil muminina yaxuddu min absaarihim waxal way gëm ñu góor ñi ñuy damm seen gis ak way gëm yu jigéen ñi ñuy damm seen gis da ngay gis koo xam ne léegi bu njëkk def lu kon da ciy yomb muy njaalo sallallahu alayhi wasallam na woon ay bët day njaalo ay nopp day njaalo ay ay tànk day njaalo léegi da ngay gis koo xam ne mën naa tëdd ca lalam di njaalo ci téléphone yooyu yëpp kon ni mu amee jariñ loolu am noonu la amee waat ay loraange barab lay boo xam ne nii euh, bokk na ci loraangeem mooy maanaam day sànq waxtu barab la boo xam ne dafa mën a sànq waxtu mën ngaa nekk ci sa téléphone mu neex loolu waxtu julli yu jël mm-hmm. nga nekk ci loo xam ne amul njariñ ci suba ba léegi yaa ngi jokkoo koo xam ne nii di bindante loo xam ne amul benn njariñ bu njëkk ndeysaan boo masaa gis nit ñi ci lu baax rek lañ doon nekk bu njëkk li ñu doon wax naan mooy problème yi mooy tele yeeg film yeeg nangam la ñuy wax waaye léegi gis nga gis nga kenn seetaanatut télé daanaka kenn seetaanatut kenn garam place da gis xale yu góor yi dañuy toog di waxtaan jàkkaarloo dégg maire yi toog seen i garab jeeg ya toog fee léegi kenn defatu ko wala bu ñu toogee kenn ku ne yaa ngi sëgg sa téléphone bu ñuy waxtaan lañu xoolante ca yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëgg jullit di xool moroomu jullitam di muuñ ëllëg yomal xiyaam nee na jataay ba ñuy toog ñun ñëpp dañuy jàkkaarloo ala sururin mutaxaabilina yatuufu alayhim wildaanun muxalladun jataayub àjjana noonu la dañuy toog di jàkkaarloo kenn ku ne di xool sa morom di ubbi sa kanam loolu amatul léegi sëgg rek yor sa téléphone bi sànni rek kenn xamul ci nekk yooyu yu bari la yu ci am barab la boo xam ne euh, li muy sànq bari na barab la boo xam ne it maanaam day indi noonoo bari nay noonoo yu am léegi boo ma sàmm la naqari da ngay dem ci diw ko wax dëgg yàlla da nga def lu ma naqari mais mun la ah yéen lii kenn du leen yëgal léegi bu la kenn sëñ Abdou Khadir Lo mii bu la defee lu la naqare léegi da nga koy ëstati waaw man daal ku ma seeti ma seeti la ku ma seeti du ma la seeti fekk waxi waxul ngir yàlla waaye am na leneen lu mu bëgg a wax barab léegukaay la mënoo ubbi léegi ëstati ci doo gis bu léegul moroomam wala ma jékki-jékki wëru vidéo boo xam ne nii ab ustaas da cay wax loo xam ne nii diglu ko sax wala la tax ma di ko dugal du ngir yàlla waaye daa bëgg mu waxal ko fajal ko meram bii waaw am na koo xam ne moom ci wàllum noonu rek lay wax moom ay vidéo vocal yëpp noonu ak nangam ak nangam bu ko defee moom la ñuy jël di ko enregistré di ko denc léegi denc duñ vocal day wax ci lu baax wala Serigne Abdou vidéo yi Serigne Abdou xam ne day wax ci nangam duñ ko istat mukk doo ko gis wala Serigne Samba yi wax ci yomal xiyam mukk ci àdduna duñ ko istati mukk wala yi muy wax ci wàllu jaamu yàlla mukk ci àdduna dañuy xooli koo xam ne mer mi ñu am ndax danañ gis ko ci wax ndax mënuñu ko wax bu ko defee ñu istati ko bàyyi ko di xaar diw nag mu liir ko bu ko liiree mu xam ne moom lay kon yooyu yëpp mi ngi ci biir bari na ay ni ñu waxee njariñam noonu la baree ay loraan kon euh, nit kii moom mooy xam ne tax mu jëm si mu xool li nga xam ne moo ciy njariñam mu nekk ci li nga xam ne moo ci ay loraange mu moytu ko dafa mel ne nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ci xeet yi dëkk yi nga xam ne réew yi nga xam ne mooy réew yi néew doole yi surtout ñun waa Bawol ak Sénégal ñun ñoo ko gën a dàq utiliser boo dee xool intellectuel yi rarement ngay gis ñuy nekk ci di jël seen temps bu bari dañuy ñëw connecté xool message tontu déconnecté nekkaat la leen koo xam ne nii 24 heures sur 24 mu ngi yor envoyé léegi mu di la tontu boo xool fekk en ligne waaye ñoom da ngay gis dañuy ubbi dégg nga xool li ñuy xool tontu déconnecté nekkaat seen yeneen liggéey ci loolu moo di yàlla loolu mooy nit dañ ko fi indi fii suñu borom fa giñ ci jamono wala asri inna l insana la fi xusrin illa lazina amanu wa amilu saalihaati wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabr suñu borom dafa giñ ci jamono ne giñ naa ci jamono ne doomu aadama yëpp ñu ngi ci perte ba mu des ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla ba noppi nekk ci lu baax kon loolu nañ koy bàyyi xel dafa mel ne ñu ngi signalé bu yàgg ba léegi ne waxtu yi jeex na dañu yemandi foofu rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.